Dapur lalu. Sa papa dafa bëgg bayar bàyyi sa njàng

kon nag kon maa si yow bu baax a baax a baax ndax xam naa ku dégg dëgg rek waajuram ko loolu moom da lay yokk da lay yokk. il faut waajur de waaw la sant waaye jàng mi moom waru ko kaa bàyyi la. jàng lan sama doom ci jàngul tey jàngul ëllëg yow ku xam nga ne jàng léegi doyatuma violence bi si am rayante gi bàyyi tool yi laa am bu ma sañoon nga jàppale ma si tool yi ak sama ak sama xar yi bu ma sama nga baal ma sax. waye nag ma wara baye ma parce que yow ngi julli gi yegg sax mënu faar xam ñu ko ko ko rek dem sa yoon ko defee baax waaye da ngay ji sa baye kon yow la ci sa taw ci tole yow sëñ bi maa dem de waye jang la bëgg ta mom lay def mu yow baye muy xam waxal ah, ku jaamul dara ku jaamul di nga taxawaal man la sama doom jàngul tey jàngul suba benn part la ci kër gi maa ko yor maay dirigé. moom maa ngi lay xaar ci biir li ma wax dañ def wala doo ko def. ah. mais tey jaaxal nañ ma loo ni mu biir loo ni mu biir yal na leer chết chết sẽ xin rằng tay ông quân jam ở phía này tổ à đang ông jam nhất sẽ xin ra đây gol à đang bao giờ nào đuổi mùng sẽ chết chết chết chết manus là jam ayo jam này đang sama ta jin kamu pun mau jam nam đang nó bắt lại sama ta jin jin jam rồi khi anh được đặt ra đặt ra một lúc thì mua lâu một một một cái nút này là mà Usman Dembele waaw lan la. waaw tawoon naa waaye jàng na. ñu ngi leen di jàng. non non kon da ngaa jaawale ah. dama sa morom la lépp sa ndey la waaye maa faa doon yóbbu. waaw man kay jàng ñu. dinaa xam ba am ndax maay kilifa wala moom kilifa mooy kilifa ak yow. man jàng man kay jàngu ma dëkk. maanaam jàng loola. jàngu ma dëkk. waaw ndax man ma bañ a mën sa bopp kaw bi. waaw baax na. waaw man lu xew sama kër gi kër bu nga xamante ni coow bu ñu coow ba ca lii lan la. ma ne ko. suy suy doon. moo gën fa doon. suy doon bi la dama ne dama koo ñaan loola. të të të ni jaay ay ni jaay lii naa la ba tay di bëgg jaay waaye ko li bëgg mu def ko. ay fan ay fan. maa bëggul nga ne Ousseyn si jagale wala Ousseyn Faye. man ñooñu xaw ma wala man ñi daal maa dafa def kamu ngerti kan? Ada bukti dengan. Ya udah ngomong kalau Pak, kabar ya. Dari ruang sen. Iya, itu kan. Kenapa anda dia pulang kamu? Memang dia minta Pak, kalau aku luar lawannya apa? Why are you acting? What's the matter? vì đẹp mà đẹp là chính mình Nanti di mana lah? Mana ruang yang mana sih di mana sih? Lain kita boleh, kan lima orang. Baik dia ni orang dan orang Nah, kon kon dan dia bayar dulu ya, no ya, hujan cukup di anggota. Kau. Rồi, tôi tôi tại sao tôi thắng cái này? Tao mới lôi được vào. 다이 여기 또행사 보고 월로로서 우리 세대 하나가 비가신다는 거 아니 이거 하나 비변이 변이 찍어놓으래 야 사업 보이 나면 괜히 있어 년 보이 찍 넘버야 내마 아빠 이사 함난 용이 시간 미사 딩요 월로 에 보이 찍 나오가 지원네 你在干什么？ te te te te booy yow lu wax maa toog beneen bay daaj. te su ma xamoon sa yëfi ñàkk fayda yi nga may doyee doo fi jaar. nga ni ma. waaye ma ne su nga may doyee doo fi jaar. man nag na ma ni kon nga walaxu. yow sax yaa yablu sa bopp. booy yàmbari la sama jinge woo. waaw jàmm sama ma ne ma jox la sa jinge woo. ah booy am xajal benn jaay nga Oh, yang babi gue nendes. Oh, lala. Oh, kamu lupa ke ya, Pak. Kok udah ada, Mam? Ziarah balik. Mana dapat ini? Aman, tanggul ya, Greg. Bila aku nunggu juga nendes. a jaxase rek xam nga lan la. waaw xale yi léegi sëñ nañ sëñ boo xamante ne. ah xanaa maanaam biberon yi wér di nàmpale léegi. ah yaakaar naa am na lu muy def si ñoom de. néew ngay ne la. néew ngay ne. xale yi sëñ yi xale yoo xam ne rey nañ gën a gaaw kay de. moom waxtu bi jotagul la. ah. ah jar na ko de. nan doxalee ko tey jumaa ji ba xam. waaw waxtu war naa mën a jot. ah Faye maa ngi góorgóorlu si jumaa ah boobu de nafar gu métti rek. nafar gu métti rek. non ci gis nga doom moo takk naa ko de sama loolu yaa ngi sama bët yi de. man la duuf ma kii Modou la. yow man may sa bàyyi nga naa ma père. yéen père loo leen def ci sama traite trois. papa loolu daal di sama papa la. mooy baa nga defar leen bagaar nga naan père. ah waaw bàyyi ci kanam maa ngi ñëw. yow loo mel ne ku yàllu dis ni yow. mais samay 18 génn ci naa. waaw yow kay daaw yàgg ci mandikat yow ayam na ci. waaye mu bëgg na ci. la la yéema maa ngi koñ. ne ko ne ko man seen tur son la. xool nañ ko de Imam Songar gi ngay xaar. looloo gaañ. xool naa la ko génneel salay tëji per yaa ci des. ah man na buñ man dajal maa yow mu wet si yow. ma ne la per yaa ci des. man de kat lan la maa de kat ko de. saa waay wutul sa bopp. dem na ku ñu yam xeer nii. boo duggee ci man di nga gaañu de. waaye yow xaar ma tuwal sama surtout ma di ma jàng. xool naa la ko génneel salay tëji Gini loh. Makanya sejuk mah. Nah, kalau lari. Kamu mau kau nanti ulo. Fi, fi, fi apa ini? Ah, itu kayak kau awal yang awal yang lain. Metul mandi tadi, metul mandi tadi. Sawah, pan makaman dan boleh nyemak nyer warna ni. Pendek kalau boleh tapir sama sedot. Kalau pendek hidup kau fi, fi yang aku kau fi kalau mandi kau mandi tadi imam lu ko dal lang moom moo ko teg boppam man xam naa ne moom sama armation yi xamoo kii ko ndax man jamono ji léegi man dama tiit tiit naa sa ne ko lool sama sama sama bàyyi kër ga bu ma demee dara laa wax malo ni yaay ni yaay bu lu jeex ndax bu yàlla damay feneen takku ñaare rek xam naa dinaa ko yor benn jabar yaa ngi ci heure de xaw na du fekkee coono borom moo tax Oh, ayo, ay gue mati ka dito na rin ng rek. Yung magmuno na yung top mas alam yung rek. Saan na ito? Nambi. lagi si Fiway. Yung mong baja, tayo mong lalani. Tayo mong nani tayo mong lalani. Lepas ka dini. Kamu akaw? Kuda na, kuda na iman ni Jens. Yes. moom Modou moom la nekk bàyyi da koo jàng da mu dem ànd ak topp gisement rek ba nar a yàq boppam. ah loolu moom yéeme na leen jaar. ana Baye Mbaye moom. Baye Mbaye dafa jàngi. Baye de maa koy fayal muy jàng. yow waxoon naa la man sama doom ji bëgguma mu jàng la am. Sani Ndiaye nu may def jàng mi la bëgg kay bàyyi ñu xam ko seen moom rek. asalaamaaleykum. maaleykum

dangaa bokk ci xeet bu baax ci yàqu rëy nga bokk kon doomu imaam ji bëgguma nga mel ni moom ndax moom bàyyi da koo jàng doo wii kees man nag yéex na maa xam ni jàng am du ma def loolu nangu def pour jàppale ko Latir si moo ko dee jàppale ko defoon daaw bi aju. waaw maa ngi leen moom kontaan naa sama doom bi si biir dama sagal na. ah nu ñuy def. kon ba léegi bu ko dalee jàngu dañuy gën a gannaaw na leen bàyyi ñu àndi. waaw xëy na mu amoon njëriñ ëllëg si société bi. lagal si biir bu añ bu tolluwaay. tey loo bëgg a añee ni jaay tey kay ñëpp a dagan naa ne ñëpp a dagan de. tey kay moom loo bëgg yaa may ni xiif naa tey de. xaaral ma dem jaaxaale fële xaaral añ. xam naa nag moo tax temps yi moom jumaa yi moom gars yi dinañ ñu gëj a gis moom ay ñoom seen jóg dañu ma gëj a gis lool ndax yaram buñ mitti rek waaw ma ñëw toog fii ci grand place bi xëy na xam naa ne seen jóg léegi mu ñëw fekk ma damay ragal ne moom tamit dóori kere bi ñoo ko jàpp xam naa ne ñoo ko jàpp ah ah seen jóg yow foo grand place da ko arama ne de léegi léegi maa ngi lay jàmbat maanaam sëñ Diop xam naa ne dóor yi keroog yi. maanaam yow kay suñu dóor yi gën a nekk saa yoo set. man sama yéesi métti na. saa waay wax naa la mbir maa lekk di. amul lu gën a jaaxal si waa ji. ah waa ji man waa ji ni mu toll man. ah ñu ñu njëkk la ñu ñu njëkk la. nga ko ah cette place. ah day awaar ah, ñu ñu njëkk la de ñeneen ñaar toll. Ah. xam naa ci màgg la bu njëkk si màgg. est-ce que nekkul ñu ñu njëkk ñoo jël si waat. ah si maa xam ne moom foofu la tànn ko nag. ah loolu la la. waaw gën na ngay làq ñaar de. man moom nga déggee. muy procès yooyu noonu xam nga yaa sama naay. waaw waaw waaw yaa procès loolu nag. ah imaam kat bëgg naa la seere waaye fit bi rek koo jottoon nag. non léegi takk naa fit bi. ah xam naa ne imaam dafa war a yor ñaar. jot jot na de xale yu lii. imaam nag imaam ñaaray da ñaar mooy daal laa jëm de. xam na xam ngeen ko nag. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ Diop. waaw na ngeen def. waaw 啊，是女士乱聊。南溪江啊。Ngoki kan? Ngoki kan malat malat. Ngoki. Malat malat. Malat. Malat mau mau sano. Kita mau tangan deh. Tangan deh, betul deh. Kalian mau mau cepat. Tangan deh mana ada paham. Sana, sana, sana. Nyom manti manti. Boswa. Wah wah wah. Jatuh. Dulu dulu lah. Dulu dulu lah. Anu lah. Ayo amudi beleru dulu. Musu bayram le président moom ñu ñu ñu ñu kàkkandale xaj mu xaj xam nga. wala nga Macron. Macron la waaw bi nga Macron. ah yow war nañu see fàq bu xamal ay mag ay Macron rek la ñu tuddee. yàlla boo di def gànnaar ah bañ doon ba bàyyi. wala boo di xar bu ndaw. ay am li sax ci Macron. ah na ngeen demal waay. ah lii moom bu ñàkk ngay indi indi ab koppar kon fi réewum commandé ngeen dugal xam naa yaa ngi si bayam commandé bi. ah kon yaa ngi jàng wala yaa ngi si bayam commandé bi. Ah, ah, du ñàkk ngeen bàyyi bi dara xam nga du ñàkk ngeen bàyyi bi dara rek. am solo jàpp ci xel bu borom ah ah macha allah ah yaa fi jiitu waaye wàllu koppar maa ca jiitu déedéet loolu imam maa ngi waaj projet ñaari jabar te benn weer ah man dama bokk si ñaari jabar imam maa may fi xaalis bi projet bu ko laroon ah bu ma paree naa waaw séddale ma jox ko bu ndaw bi rek kon nga da ngaa bëgg xaalis te man mag laa mag mana soxla. mana mana, la dana yow man imaam man imaam man. wala bu Mana mana moom day wax Mana ndax bëggum xaas bu nawee mana jox ah baal ma gaara. waaw bu tee wala bu bu ma man maa ko tuddoon fii man maa ko tuddoon. man maa lee woon. xanaa léegi la rafet rek mais ba mu nekkee lii ak a ñaawoo. ah ah dañu daa baal allah. waaw xam nga tuuti rek. mu mot bi am am ndaje bi. ndaje bi lan moom. bu dee conférence am. imaam a koy def. waaw xam naa ne. yow nekkate sa kër bu réew yëpp ay leetar man damaa jàpp ma jox kii. aywa day dawal de mun ngaa jóg mun ngaa jóg. waaw imaam dañuy ñëw de. yéen a ngi daw nii. ah waa waa sëñ bi. imaam wàllum xaalis bi kat nañ xool nañ ko organiser. yaa may wax say projet waaye fii na xaalis mu judd lu ci mën a def lu bari de. wàllu xaalis daal man leen laaj xalaat. ah comme yaa ngi xalaat takku ñaareel. ah man tamit bëgg naa takku ñaareel. waaw léegi nañ ko ah, loolu laa gis. kon maa lay judd si projet ba kon. Eh, ñaareel ba xale laa bëgg. ah xale 2005 yi 2004 yi. waaw mu dellu si 2006 nag 2006 day nii xale xale yooyu ñoo may arrangé ndax imam moom day soxla yooyu

Kita aɗafa wakil ini anka kay moom sax dana dese ñëw. gannaaw jiw nañ si. ah dana wax ah ñu woote woon ñoom. ah mag na buñ toogaay bu yàgg te ñu doon jëm mag léegi. ah kon ay léegi kat maanaam Sénégal ñu ko tàmm ñoom biñ béy foo soo rendez-vous rek. temps yi dañoo am yeneen projet yu bokk ak yi ah salaamaaleykum salaam. kooku maa ngi lay def maa ngi lay def. yaa ngi lay def. Fouta yow ak mënoo jaaxal nañ ñëwee. wax papa. kii daa mel ni bàyyi ko Dias. waaye nag léegi léegi muy jàng de. ah mais nag war rek. moom xale yi moom ñu ngi nii ay mag lañ nag mënuñu ko. jëlaat wu yàgg tamit. ah. salaamaaleykum. allo. imam ah sëñ bi na ngeen def. naka njaboot gi. alhamdulilah waaw fu ñu. waaw sant yàlla. ñu ngi ci jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm bu baax. daanaka naroon nañoo ñibbi ndax toogaayu yàgg. waaw ñu ngi jégalu ci tardement bi de. ah yéen tamit teg say verre tamit du tax nga yem de. waaw ah day ko war de. ah ñoom tey moom man toog ma lala man man xamal lu tax léegi xale bu bu démb réewam boo ñëwaatee rek takk say daal sol say jiir sol say semis ñu moom. Ah ah. Ah, ngi jégal ci retard bi. waaw jotaay bi moom moo ko waraloon. jotaay bi lenn rek moo jàng ak jàngale ak génération bi nga xam ñoo ñëw ëllëg ñu jàng bi war a def fi ñu. ah yow daal su ma déggee sa kàddu mooy njàng ak njàng lan lay def am solo. dina am solo waaw waaw. waaw man xam naa bëgg naa jàng trop waaye sama papa ji moom nanguwul a bàyyi ma jàng moom daal daa bëgg ma nekkal ko si xarala te man moom jàng laa bëgg. sama doom ji dëgg la. waaw waaw dëgg la daanaka man li ma sama bàyyi daan yere. pour man leen moom laa war a yere sama doom. boo jaaw bàyyi ma ko mu jàng. tool yeeg rek laa fi nekkaloon. ba ma demee daal bu reconnaître xam ni moom jàng bi am na njëriñ te am na lu muy def société si la yaayam jooy di góorgóorlu di ko fayal muy jàng ba man li ma jot a am gis ñëw ma ko jël fayal muy jàng ba pare sax daanaka suñu wàllu julli meeg jaamu moo ci jàppale moom bi xam naa di ko encourage baax a baax na loxo doomu imaam jee nga xam ne gees la bëgg a dëkkuwaay ah ma lëbëg sama yaay ji saa suñu xëyee mun ma ñaari junni ah waaw li seen jóom mi wax dëgg la ndax man sama soxna si moom dafa dafa nangul man sama doom ji mu daal di jàng dama koy jàngaloo mais mu ne ma newal fubali dama wax dëgg fa yàlla dama bëgg mu mel ne man mii di bàyyam mu nekk boo xam ne référence ndëkk bi loolu laa bëgg man soxna si nag damay koy jàppee ne koo xamante ne rek dafa xamul ndax bu xamoon importance bi nga xamante ne moom moo nekk si njàng du tere doomam muy jàng ndax bu xanaa damaa gaara daa déggul aaya wax te man ku ma dégg sa waaj ñëw na. daal laa toog du nga nee ku lekk ak yéen bi toogal. sa bopp sa attanoo ko yow. waaw mais. monsieur Guèye. madame Diakhaté. waaw mais si yóbbu yéen. non. waaw mais. ma. kon ni ñu ko gisee gis jëmm ji nga bokkoon fenn fu doon jànge nga ne sàggante moo koy tax mu mel nii nga ne kii kii yéen a bokkoon fenn jànge bokkoon fenn fu doon jànge kii la keroog duma nañu fi duma yoo xamante maa seen joor mii ah. xam nga fu ñu koy nettale ba du tax xelam rek xam naa moo waral lii lépp xam naa rek mooy comme fi ma doon waxee rek ndax soo soxna see dafa xamul ndax moom daa déggul aaya bi suñu borom naan qul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun dégg nga ko de mooy imaamu kañ de moo ñu jiite ci saaba yi de. ma ne ndax aay bi fasanti koora. dafa dégg. waaw waaw macha allah li mu wax am na solo waaw ma doole leen tuut mooy la yi. parce que ki nga xam ne dafa jàng ak ki jàngul mu ñoo yam ki am leer ak ki amul leer bokkuñu parce que réew mi fi mu toll nii laaj na jàng te dañ fi gis xale yoo xam ni dañ fi bëgg jàng mais seen yaay dañu bëgg alal dañu yàkkamti seen alal te gis nga nit ki nga xam ne dafa jàng. na dem ba am alal joo xam ni moo gën a yiw moo gën a yiw ki nga xam ne kii nii nga xam daa màndi ci doon yàq na njàngam ay waajuram nekkuñu fi ah nga la waay ñi nga xam ne ñoo bëgg jàng aleykum salaam wa asalaamaaleykum bi maa ngi mu def ci doomam ji du noonu que ak jeex te xam-xam day des ci góob

xamuñu wax dara mais léegi xoolal fi ne jàng ku jàngul daal bokkoo surtout maa jàngu bi léegi mu macha allah parce que ñun ñi gis nga jàng nañ ba am xam-xam kii dem France ma man ma dem Maroc ñu maa ngi yor xam-xam bu bari bëgg koo tasaare suñu mbokk yi nga xam ne ñoo toog fii pour ñëpp xam ne jàng mooy li jiitu ku am sa doom nga xam da nga mu war a jiitu ci dënnam mooy alxuraan parce que imam bi mu jàngoon est-ce que jiitu jumaa ji doom ñi ne moom dégg naa ci mandikat la mais instant bi yàqu la mënatu laa jëriñ dara ah sëñ Diop de gañe na la donc moom ba bëggee jàng lànkoon na de mais doom ji jàng na léegi macha allah parce que dañ fi gis yoo xam ne suñu maam yi dañuy nekk ci diine yi di nekk ci ba dee ah seen doom yi ñëw daal di koy teg fële nekk ci business kii fi ndool daa business ba yàqu mënatul dara fi ndool nii est moom mën naa dem di jiite sëñ Diop ah déedéet duñ ko nangu kii nii ah su ma sañoon bala ñëw jigéen fii ñun ñëpp dañ koy yegg incha allah xam naa bu fekkee wàllum xam-xam dañuy waxtaanee ah d'accord naa ñun ñi ñëpp mu mos a jógee fi ba suba nga xam-xam moom macha allah tabarakallah kon xam naa dañ koy yemale foofu rek incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ma yaay suñu papa yi maa leen nuyu baax di leen ziar di leen jégalu bu baax ci toog ak yéen ñu sama gàll. di leen wax ni kii de mag la. kon kii am na ba yàlla ay mag. sama sista la. yow te toog teewul rek naa six ak sept. waaw xam nga nekk wax ne ndax moo moo sañoon dina nekk ci beneen état bi waaye di leen wax ne lii de ko yóbbee leen gase la dañu ci kër gi sama papa ak yaay dañoo nekkoon ñu ñàkk lool amuñ kenn ku ñu jàppale. sama papa lu mu am mu jël ko jox ko ko pour mu jàng jàppale ma man rakam jàppale sama ñaari waajur waaye xarit bu bon ak bëgg xaalis moo ko yóbbee lii te dañuy naan nit ki noo bëggul mer wala ànd ak ñu mel noonu olof Njaay ne wax ma sa xarit ma wax la sa jikko waaye tamit ñun war nañu a jàppalante ci biir rawatina ñun jullit ñi ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ni yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم kon war nañu mën a jàppale ba nga xam ne doo gis sa morom julli naan kii maa ko gën déedéet te bu dee wàllu sàkk xam-xam yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima kon war nañu ñun ndaw ñi sàkk ji xam-xam ba xam-xam bu mos a lees ci sa mag ak yeneen ñetti xale yëpp war nga ko mën a def ee yéen sama mbokk jigéen ñi ak sama mbokk góor ñi ay su démb doon tay dinaa topp sama ñaari mbokk yi dem jàngi waaye di àndandoo ay àndandoo yu bon ba ba ñu dugg ma ci lu bon di tuux ak di naan di yàq xale koñ di topp sama bànneexu bakkan alalu àdduna tiital ma ay man ma ay man fu ma ay man fu ma nee tax olof Njaay di wax naan ëppal nañ ko gën du moytu lépp lu la xëy ak lu mënta doon ne nga tekk tekkaaral wala yoon ndax rëcc fu mu amee day fekk jëf weesu woykat baa ngi wax naan ku yar sa kuy mu rëy bu la mbëkkee bul ay di nga guubay li nga bay ay yow mi yaa tay ee yéeni mbooloom julli ñi ñun ndaw ñi faaw ñu jóg sàppoo defar looti sàppu xam-xam bu rëy ndax mu fi daw joote askan wu raw xam-xam moo mu raw ñi mu raw xam-xam ku ànd ak jëfee booy yàqu doo góob. Sinuwaa yi doy nañ misaal si génne ay ndami ndam. ci xeetu xam-xam yu rëy yi duñu tay yi duñu wuute. ku xam-xam yu rëy yi. day dee xiif ak imaam. ak rafle daw kàtt ak mooy yàlla daw yoote. ku xam si ñàkkee soo ko xam ku ñàkkee boo ko xam ku ñàkkee boo ko dootoo rek yooti.